asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm tey ji ëcculikaay bii di Sud Quotidien dafa daal di fësal jafe-jafe yi nga xam ne nag askanu réewum Sénégal ak réew mi it mën nañu ko jànkonteel su fekkente ne nag jëluñu ay matuwaay ngir xeexee ci ni mu waree lépp lu jublu ak feebar bii di coronavirus ndaxte ëcculikaay bii di Sud Quotidien mi ngi ñuy xamal ni ñu ngi toll ci phase 2 phase bi boo ko déggee moom mooy ne fu mu nekk nii feebar bi dafay dugg ci diwaan yi nekk fii ci mim réew di fas yéene nag law te su fekkente ne nag jëluñu matuwaay ak tamit stratégie yi nga xam xam ne nag moom moo war dinañu yegg ba ci phase trois phase boobu moom ñu ko yàlla wante bés bu fi amee moom jafe-jafe ju tar lañ ñu fas yéene indil ndaxte feebar yi ñu bëri boobu nag dina fekk ne hôpitaux yi nga xam ne moom la ñu jagleel ngir ñu faj feebar bii di coronavirus dañuy fees dell fi mu nekk nii sax hôpitaux yooyu fees nañu ndaxte julikaay bi di Sud Quotidien mi ngi ñuy xamal ne sa njël benn kii di docteur Abdoulaye Bousso moom mi jiite centre des opérations d'urgence sanitaire moom moo xamle woon ne am nañu ci lu tollook juróomi téeméeri lal yoo xam ne daal mën nañu faa faj nag ñi nga xam ne ñoom ñoo am feebar bii di coronavirus wante dañoo nemmeeku ne fi mu nekk ni limu ñi nga xam ne daal ña ngay saytu seen wér-gi-yaram fi wàllu feebar bii di coronavirus ñu ngi tollu ci juróomi téeméer yu tegal fukk ak juróom-ñaar julikaay bii di Sud Quotidien ne saa su ne léegi dañuy faral di nemmeeku ne dina weesu juróom fukki nit yoo xam ne daal dañuy am feebar bii di coronavirus te loolu su fekkente ne nag dafay wëy mën nañu yegg ba ci junni kaa loo xam ne nag kii di professeur Seydi moom bugguñu yegg fa ndaxte nee na na daal jafe-jafe yi nga xam ne moom lañ ci nar a am kenn munu kaa natt jolikaay bi di Vox Populi ne nañu ko waxte dee wante nag fii ci biir réewum Sénégal la fay xeeñ jëmale ko nag ci feebar bii di coronavirus daal neexul dara waay ndax fu mu nekk nii hôpitaux yi fees nañu dell te suñu moytuwulee nag faj ci ni mu waree ñi nga xam ne de ñoom ñooy ñi am feebar bi di coronavirus dina metti jolikaay bii di tribune di ci yokk di xamle ne lu weesu nag ñàkkum jumtukaay yooyu nga xam ne moom lañ a nemmeeku ci biir hôpitaux yi beneen jafe-jafe ngi nii nag daal di tegu ci seen seen kaw moom mooy ne léegi lu weesuwul nag feebar bi di coronavirus nit ñi du ñuy faral di dem ci hôpitaux yi di faju te loolu moom dina indi ay gàllankoor eh, ci wàllu koom-koom ñi doon foog ne réewum Sénégal ñoom la ñuy xeexee wàllu feebar bii di coronavirus moom moo taxoon nag ba li ñuy am ci wàllu cas bëriwul ñooñu def fu mu nekk nii nañu xalaat leneen ndax ci ay bii di la mu nit ñi nga xam ne ñoom ñoo am feebar bi di coronavirus ndaxte ñoom de saa su ne nag ñuy faral di nemmeeku ne ña koy am ñoo ngay gën di yokku te ci fan yi nga xam ne moom la ñu dëgmal autolikaay bi dal te mooy du ñu xamal ne ñu ngi njott tamit ne limu ñuy am feebar bi di coronavirus dinañuy wéy di bëri fa li nga xam ne moom mooy ci diwaanu Sédhiou suñu naan angoo autolikaay bi di 24 heures ñoo ñuy xamal ne ka fa njëkk am feebar bi di coronavirus daal dina koy wàll ci lu tolloog ñaar fukki nit ak juróom ci diirub benn fan te am na ci lu tolloog juróom-ñetti fukki nit yoo xam ne daal denc nañu leen fenn nag ngir saytu seen yaram ndaxte ñooñu ñoom ñoo wala ki nga xam ne moom moo njëkk am feebar bi di coronavirus fële nga xam ne moom mooy ci diwaanu Touba culikaay bi di libération moo ñuy xamal ne benn tailleur buy liggéey ca marché moom de dañu ko woo wax ko ne dafa am feebar bi di coronavirus que ñu ngi ko fas yéene nag jël si moom ci noonu la ne fes ne menteng réer ñi nga xam ne nag ñoom ñooy yëngatu ci wàllu wér yaram wante nee nañu nag ca mujjantal ga xaaju guddi la daal di yóbbuwaat boppam nag ba ci hôpital bi culikaay bi di direct news ne kon lii jot jot na gannaaw de léegi kay faw nag ñu daal di jël ay stratégie ak mbatuwaay yoo xam ne daal moom mooy tax ba ñu mën a faagaagal feebar bii di coronavirus ñoom sax ñu daal di ci lim lu ñuy tuddee dépistage massif maanaam daal fexe nag ba nit ñu bëri ñuy seetu seen wér-gi-yaram xool ba xam ndax am nañu feebar bi am déet suñu naataango yi di ñu xamal ne ay dëkk yu mel ni Allemagne li ni mel la ñu daal di def te nag ay ngëneel kese lañ ci daal di gis ci lu jublu ci wàllu jàngale bi enquête moo ñuy xamal ne fu mu nekk ni moom ndax dinañu tàmbale jàngale bi ci ñeenti fan ci weeru mai fu mu nekk ni dara wóorugu ci ñi di syndicalistes yi ñoom la ñu xam daal moom mooy ne l'école bi moom fi mu nekk ni kenn mënagu ko tàmbali waa grand place moom it jokkoo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waajuru ndongo yi ñoom it li ni mel la ñu daal di xamle démb fa li nga xam ne moom mooy ca ginnaaw raay la ñu daal di tàmbale nag di séddale dund gi nga xam ne nag njiitu réew mi daf koo jagleel ñenn ci askan wi autolikaay bi di laas mi ngi ñuy xamal ne Mansour Faye moom ma nga nag ci wàll gi ni incitation à l'entrepreneuriat rapide dafa daal di génne koppar gu weesu juróom-ñeenti milliards ngir jàppale ko nag ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngatu ci wàllu filière anacarde ci wàllu mbayum dër ak tamit ñi nga xam ne daal ñoom ñooy ay këru liggéeykaay yu ndaw ndawaan yoo xam ne Covid 19 mën na leen indil ay gàllankoor koppar googu coolikaay bi di la Soleil mi ngi ñuy xamal nit ñi mbay lépp lu jublu ci wàllu euh, soble ak tamit pomme de terre dina leen jàppale bu baax a baax ndaxte dina tax daal mi nga xam ne ñu war kaa mën a jaay balaa ñu koy bàyyi nag muy nëpp foofu nga xam ne moom mooy ca vallée du ak ci ñaay bi jeexale ko ko julikaay bii di les échos mi ngi ñee xambal ne joni ngi ñu dénk wàllu aada démb demoon a nemmeeku ci juróomi waykat yii di Youssou Ndour Thione Seck Omar Pène Baba Maal tamit Ismaël Lo ñoom ñëpp nag daal di ñëwaat ci jafe yi nga xam ne nag moom la moom la ñoom ñuy jànkonteel ak tamit askanu réewum Sénégal ku ci mel ni Thione Seck julikaay bii di les échos mi ngi ñu xamal ne moom daal di nay dénk joriñ gi ñu dénk wàllu aada ne jamono métti na te faw nag ñu daal di leen jàppale ci noonu sax la jëlee facture ndox ak courant am jébbal ko ministre bi Youssou Ndour it daal di xamle ne ñoom fu mu nekk ni ñu ngi ci njàqare te it tiit nañu nag ci seen wàllu ëllëg Omar Pène di xamle ne ñoom ñu ngi liggéey ak ay nit yoo xam ne daal ci ay jafe-jafe yu tar la ñu nekkee Ismaïla Lo moom daal di gis nag ne coow loolu nga xam ne moom la ñiy yëngatu ci wàllu aada di fësal du ñoom dong de ñoom ñooy jànkonteel ak ay jafe moom daal di ne xamle ne askanu réewum Sénégal yëpp ay jafe-jafe yu tar Sarr lii moo nekkoon ba lu kat li gën a fës ci biir ëtulikaay yi ñu leen di ñaanal njeexitalu bés ak jàmm